kon loolu mooy xew fii nga xamante ne moom mooy 54 euh, mètres gis nga policiers ñoo taxaw na li euh, ñoom tamit di xool euh, observer yi nga xamante ne ñoom ñooy manifestants yi pour xool lan mooy tukkee si li nga xamante ne moom mooy donc xoolante boobu kon mbokk yi lii la mooy li nga xamante ne moom moo fi xew. voilà voilà gis ngeen ko 54 mi 54 euh, bi yëpp lañ taal depuis li ko jàppee rond point Aline euh, Sitoé boo fële fi nga xamante moom mooy euh, cimetière bu Belfort foofu yëpp ay pneu yoo xamante ne gars yi teg nañ ko kaw tali bi daal ko taal. police ñëw na ba tiim leen daal taxaw amul soit lu dul taxaw seetaan. 어.